ndax ni mu def ndaanaan yi daan leen ba toog seen dënn fu Modou Lo échec Gris Bordeaux échec fa Eumeu Sène échec fa ndaanaan yëpp échec fa ndax Reug Reug mën naa jàpp la dëgër numéro deux jàpp ci ngembam mën a wëre ko wañ ko daan ko tokki dënam ndax loolu Reug Reug mën na ko loolu laa bëgg a laaj ne quitte mu tontu la ne quitte pas Reug Reug Reug wuyu ko wuyu question bi <laughs> non Fadam Fadam Fadam Fadam Fadam man maa fi rek maa fi rek waaw si la dëgër champion bu mag la sunu grand la def na fi. bay na waaram si làmb ji a bay na làmb bay na waaram si làmb ji mais làmb bu ñu boole dañuy bëre man awma si problème. lu tax li nga mais tey tey ak lu mu mënti ah, demee. Eh, ah? engagement ak détermination bi ngay communiqué. ci jël Modou Lô. non non si pourquoi la rek communication bi si père la rek père moo koy aj foofu. mais dama lay. même ci vidéo yi dañuy gis tu es trop eh, agressif ci ah. ci Modou Lo. Eh, du fi non non non kii li mu wax ne. gisul booy bu ko daan lag de lag de loolay problème bi. looloo tax ma ma ah. joxe fëggu. mais mais eh, sa digganteeg lag de avancé na. sama digganteeg lag de ah. ah. dañ koy laaj léegi mais man xamaguma si dara. xam nga ci dara xam nga ci dara prix bi ñu ko fay moo ko arrangé wu. <laughs> prix ba ca ngeen xam nga wax la kaay ma la gis nga plateau bi. mooy lamb est-ce qu'il n'est taxawagul manoo see. non non xam nga. qualité xaaral ma expliqué wax bu bu leeree. maa ngi moom di jël la dem par force. loolu moom mu koy neex mu koy naqari. xaw ma dina taxaw xaw ma du taxaw. I don't care. mais ñun loolu la ñu soxla voilà beneen bi nga ñëw. waaw waaw problème boobu Babacar lim la ñun lii la ñu soxla. voilà parce que Lac de Guiers combat am. non Lac de Guiers moom suñu combat bu taxawee jël day am par force. waaw loolu la par force day am. kuy daan d'accord waaye daa jëra wax loolu jarul laajte. waaw waaye kuy daan kay daa jëral laajte. yaa ko rafetlu suñu borom kay. Ah, ah Lac moom boo ko daanee. Lac moom boo ko daanee Modou Lo dootul waxati damay noppalu. dafa rafetlu waaw <laughs> waaw Modou Lo na xaar rek na xaar rek. comme que moom day jël mais nee na moom nee na moom day jël congé. non yow sawar nga ci Modou Lo trop. non day jël congé Modou Lo na xaar rek day jël congé. non sawar sawar nga ci sawar nga ci ku dangereux nag sawar nga ci ku dangereux. sawar nga ci ku dangereux nag. yaakaar na ni roi mais est-ce que Modou Lo mën naa daan xale yi yombe noonu. et eh, man sama fils nga sama fils nga dama bëgg. ah père yow sa ah. mbër xam nga ni sax. bu ñu amee combat yow xam nga bu baax dama. xam nga loolu xam nga loolu fu ma ko jàpp wax naa nga tourné xam nga wax naa ko yow mën nga tourné sa mbër mën nga tourné waaw boo jàppul nag waaye jàpp ko moo ñëw jàpp ma ko jàpp dégg nga mu naan jàpp boo jàpp xam nga ni kon yow xëy bu boo jàppul rek jàpp yombul ko jàppee la mu jeex déet waaw boo jàppul nag ah, waaw déet boo jàppul nag <laughs> waaw boo jàppul nag eh, eh, eh, fadam day dem fadam day dem fadam dégg nga buur buur mu ne fadam fadam yaa may dégg sappali déglul Al Bécaye maa ngi lay dégg daa foo bëgg a daa foo bëgg a duggaat ci émission bi. ñëwal alaaji. waaw buur mu ne. waaw. buur mu ne xale yi mu gis ku ciy daan Modou Lo amu fi. personne ànd nga ci wala. non buur xam nga am na ci droit xam nga tam am ci droit. Hmm. lamb dañoo favoriser woon diggante Ama Baldé ak Boy Niang. mais lamb ci bo lamb yemul ci Boy Niang ak Ama Baldé de. mu hmm. lamb lamb daa favorisé woon Ama Baldé mooy ñaa waaw ci kanamu Modou Lo le roi waaw. Modou Lo daan Boy Niang Ama Baldé ci li gën a ci carrière am. waaw. ndax Modou Lo la mu woon buur géwél ca Ama Baldé Boy Niang ndax nekk moom la tekki diggante ak Reug Reug. est-ce que mën naa ne. ndax ndax Reug Reug amul lu Boy Niang Ama Baldé amul. mooy lan sàpp am na kay. non loolu question la de damay posé de. question la damay posé question. <laughs> la de Fadam. léegi Alaaji Bekaay Mbaye. waaw. man du ma ko miimal dara ci làmb ndax mbër la moo xam ne ñett da koy topp doole da koy topp. ak mbër comme dañ koo topp. waaye Alaaji Bekaay Mbaye Modou ku ko daan du baax ci ne du ma ko gudd. ku ko daan. ku ko daan ba àcc na jot du ko gëm. Ah, dëgg la. waaye nag damaa gis ba bërki démb ak Bécaye Mbaye boo ñaata benn déclaration bu xam ne day rey làmb. waaw. aar Bécaye Mbaye boo ñaar mënut a génn ci diggante Reug Reug moomu toog ak Siteu. Eh, génn na ca wax ja de. kookal la. ah booy booy ñaan numéro 2 mënta. Eh, booy booy ñaan si te dégg naa mun ana Mansour Diop dem na. ñu ngi ci ñu ngi ci. non mais mais. am na ko ko eh, ah, non non. kaay wax dëgg ñoom ñaar doo mën a bëri. surtout eh, moo ko nar a yàq. am na benn am na lieu de parenthèse. non non non la Fadam. Ah, si te séeréer la booy ñaar géwél la. Ah, géwél du doon séeréer. et buur. waaw balaa ngaa tàggatoo. alaaji Bekaay. waaw. balaa maa tàggatoo ci émission bi dafa am réglage boo xam ne dafa am ci làmb te yóbbu leen foofu. muy ban. Gris Bordeaux rêve ñëpp mooy daal Ama Baldé ñëw bëri Boy Niang numéro 2. <coughs> mais Gris doo li bëgg est-ce que du yomb. waaye lii ma lay wax ni ah pour làmb mën a dundaat. Fadam. pour Boy Niang mën a at ci kanam. waaw day jël Siteu wala Reug Reug moomu daan leen avec manière pour mën a taxawaat seen kanam. loolu d'accord naa ko ñu ngi lay libéré yow. kontaan nañu foofu. wa wa waa Côte d'Ivoire yëpp a ngi di nuyu Aas ah, Aas ah, dafa mel ni bu ñu romb ñu ne ñu Alaaji Bécaye Mbaye ana mu ana Alaaji Bécaye Mbaye te leen ñëw. non na ah. yàlla. dañuy demandoo de. dafa am lu ñuy xaar parce que tey la dem bu baax. ñun nan ñaan yàlla dem final fii ñu toll ni may leen ma ma nopp coupe d'Afrique coupe du coupe du monde daa miti yow dafa miti tamit. mille francs da nga am gaa yóbbu la. dañuy dem da ngay sonn. mille francs da nga am gaa yóbbu la. bu demee final. ah, ah bu ma yóbbu ma yóbbu sama bopp. ah ñuy ah, dem final final dañuy dem di bu soobee yàlla. man moom bu ma yóbbu ma yóbbu sama bopp. sànq ba tey maa ngi. Eh, eh, fadam ñu ngi lay gërëm. te kenn laajuma la pourquoi. la pourquoi de quoi le pourquoi de quoi le pourquoi ma ni cette génération bàyyi loolu. ba pare mu mënoo bàyyi loolu. mais buur ah. mais buur pourtant loolu yaa ko wax te man man la attaqué man. mais man maa ko wax. ma laaj le pourquoi. mais yan raison moom moo ko wax mais yow yaa ko dëggal ah. ah waaw damay dëggal de parce que xam naa tax may dëggal. et buur lu tax nga wax sama fils nga te a am man bëgguma nga taxaw de. ah man ma. fee agsi goofu. ah ok. xam nga HBK yi borom bi du ko mbagg boo gis. waaw boo xaree xol ba màng si na cay ne. waaw. waaye ku ci ne su seen nouvelle génération xam nga kii Modou Lo gis nga. waaw mais attends ñaari booy rek la ci daan maa ngi ñëw. ñaari booy ci gën a saf la daan. est que ñoo ci gën a saf. ñi ci gën a saf la daan. Ama Balde lañ si piko pakos bi. Sathies saf na ak booy Niang. xam nga la problème mooy. Sathies saf pour pour pour mais am Ama Balde ak Boy ñaar bi ko bee Modou Lo jëlee ñu bari ñu tëdd na dañ naan Ama Balde day daan Modou Lo ñu ne Boy Niang day daan Modou Lo. xam nga HBK yi. waaw doon wax léegi. Reug Reug dafa wax sànq benn wax. waaw. ne bés bu ma ko jàppee grand jóge mën naa ñibbi. mais ce que dana ko jàpp. moom laa ko tontu bi violence bi ci Modou Lo HBK. excessif naka lay jàpp. waaw xanaa day daw. xanaa rek daw mosage mu daw. Bodian ah ñi jàpp nañ ko moom. Upa Jam. ñu jàppuñu ko. daw léegi wax ko mu déglu ma. jàppuñu ko balaa ñu xeex. na ma na ma déglu ah. agressivité bi waaw gis nga gis nga. Modou Lo gis nga Modou Lo champion d'Afrique la li mu am si Modou Lo ma ko amee si ma ko amee si Modou dama koy daan ba jéggi ko. waaw boo ko amul nag. waaw mu mayee naka nga dem boo ko amul. ndax ah, lamb lamb nga ko ñàkk ma xaaral ma expliqué la tey jii yow bu ma bu may bëreeg yow nee ma yow doo ma yow boo jàppoon tànk bi mu jóg yow ah. doo ma dóor xamal da doo ma dóor dama dox dox sa kaw nga sànni ku ma jàpp la où est le problème et da ngay génn ak géew bi. yow boo jàppoon tànk ba mu nekk. non non non non loolu rek man poche su ma nekkoo rek rek. ñu laal tànk ñu laal ca kaw. bay bal dama leen posé benn question. loolu moom conseil dama leen posé benn question. ca kaw dama leen posé benn question. léegi grand ñu ko grand dama laaj benn laaj waaye dimbali leen ma. est-ce que Reug Reug est plus technique que Boy Niang. acca Reug Reug mooy tontu. bien sûr loolu ngay laajte. yàpp Boy Niang ngay technique. maa ko dàq bëre loolu jarul laaj. mais Reug Reug Boy Niang la. Ama Baldé maa ko dàq bëre. eh yow bëggoo bëre Reug Reug. Ama Baldé maa ko dàq bëre waxaatal keneen. waxaatal keneen. waxaatal keneen. Eh, mais eh, kaay la ñuy wax. non maa leen dàq bëre. pourquoi rëgg xamul dama dàq leen a bëre. Eh, kaay la rëgg. xamul dama dàq leen a bëre. comme comme bu bëre bi nekk si man newul si ñoom. ci booy ñam ñoom ñaar ñëpp. lu tax waa léegi ma leen dàq bëre ndax fi ma jaar la ndax fi ma jaar la. damaa mbapat ba sama nopp yi toj.